li am solo rek lenn la quoi mooy man man li ma wax li ma doon wax rek démb ak bërki démb waxu professeur Cheikh Mar Diagne bi laay waxaat rek mais Sénégal bu fekkee am na violeur benn violeur moo fi am bu leer muy violé ñëpp gis ko muy violé Macky Sall parce que violé na constitution yi violé loi yi violé na lépp benn violeur boobu laa fi gis man mu leer ma ne kii moom ñeme naa waat ni violeur la moom. donc kon ñun bu ñu waree jóg jóg jot na parce que man dama ko yàgg wax man bi may wax jóg leen du tey léegi nag di am solo ba Sénégalais yi xam ko mooy. ndax Sénégalais yi dañu war a seetaan Macky Sall bu war fee nekk mel ni buur quoi comme ni ko grande dame di waxee ndax dañu war a seetaan Macky Sall ne moom moo ñu moom ba lu ko neex la lay def wala lu ko neex la bëgg a doxalee la police police ci boppam Aly Ngouille Ndiaye lu ñu ko mën a waxal Aly lu ñu ko mën a waxal quoi qu'on puisse dire lu mu doy waar doy waar sax moo tane Félix Antoine Diop bi nga xam ne neenu baxal laa ko tuddee boobu boobu mel naka nga mën a jàppee humilier police comme ça ak nu mu amee solo ci police nga xam ne ñoom ñooy maanaam lastriku nga xam ñooñu bu ñu jógee rek ay intervention yu am solo moo leen tax a jóg ngay ni wàcce ñu dem ci këru benn politicien ba lañ dóor ay briques ñuy daanu ñu den kookali quoi maanaam woyef wane faayu police wane faayu gendarmerie quoi gendarmerie lu tax ñu récupérer ñu récupérer euh, ak gendarmerie dañoo am fulla état yabul gendarmerie ku leen topp dossier bi day dem ba day leer ñu nangu ko seen loxo donc je pense que yooyu yëpp leer na amuñu temps di expliquer quoi amul jot na askan xam ni jóg jot jàmm yoo xam ne jàmmaarloo moo koy faj te Macky Sall nag duñ ko bàyyi man du ma ñooñ taxaw naan ay nañ bàyyi justice def liggéeyam Sénégal amul justice boo amoon justice ñun ñooy poñe Sonko ni ko demal wuy ci ndax xam nañu dara du ci fekk dara du ko ci fekk mais Sénégal amul justice li mu def ñëpp gis nañ ko léegi nag dañu bëgg xam ndax Sénégal dafa am doomu koo xam mooy doomu Sénégal ak keneen koo xam ne moom mooy ku tekkiwul dara ki ndax ñun nañuy nangu loolu ñun la majorité de cette population là donc ñu ngi def appel di woo askanu Sénégal yëpp ne leen ñun dañu jug taxaw pour jàkkaarloog Macky Sall ne du laal Sonko en fait c'est ça le discours il faut pas ne fii di wiiri du laal Sonko wala su ko laalee moom bu tëddee du nelaw dina xam ne laal na lu mu warul laal parce que Sonko du Karim Wade Sonko du Khalifa Sall Sonko du ko bëgg ñëw rek buraaye ko buraaye ko Macky Sall dafa ni na mag ñi xam ni Macky Sall dafa ni moom du am wujju day toog ci pouvoir mu jox ko ko neex mu toog képp ku opposé jàkkaarloog moom mu ne dina la yàqal dina la loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba ñuy woo toute la population sénégalaise rawatina la jeunesse sénégalaise ñu taxaw waxuma Casamance waxuma Tambacounda waxuma waxuma Louga waxuma euh, Thiès wax région ñëpp laa wax ñu jug taxaw jàkkaarloog Macky Sall ne ko day arrêté te day dellu ginnaaw c'est que loolu la ko day dellu ginnaaw te ñu démystifier ay kaso ki prison policiers yi sonn na ñoo ñu gën a sonn gendarmerie ñoo ñu gën a sonn armée bi ñoom ñoo gën a dee donc ñun nañ démystifier ay kaso ak ay ndax Sénégal ndax xeex Macky Sall jaamu yàlla loolu la ko Sénégalais yi xam xam ni xeex Macky Sall jaamu yàlla la te duñ ko bàyyi muy jàpp Sonko di ko toroxal am na ñoo xam ne kenn du leen toroxal et di ko jiñ ay viol ñàkk fayda yi quoi te moom mooy le plus grand violeur de tous les temps depuis qu'il pouvoir donc loolu mooy message bi di jégal ñu wasaatu salma rasulullah